yéenekaay gi direct news nee fii ci Sénégal bëri ci gox yoo xam ne ñoo ngi fay màggal guddik Seydina Mohamed maanaam juddug yonente bi yéenekaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tiwaawoon ñoom ginnaaw ñaari at yoo xam ne confinement la ñu def maanaam amuluñu gàmm tey ji nag dinañu amal gàmm loolee moo tax nag tiwaawoon fees na dell tiwaawoon dans la lumière de Maodo noonu la ko journal bi xëy fasale ci xëta mu njëkk yéenekaay gi di kaay gi di source ak xëy di ñu xibaar naan lan moo tax Baye Niass daal di international ci la journal bi dikk ak jaar-jaari Baye Niass ci àdduna bi journal bi ne nag at mu jot fenn fu nekk la taalibe yi bàyyi ko ci àdduna bi ñëw nag fi nga xam ne mooy Kaolack yéen kaay gi ne na loole nag la ko na ci reconnaissance bi nga xam ne ñoo ngi koy fësal jëmale ko ci Cheikh Ibrahima Niass yéen kaay gi ne na exemple doy nag fierté la ngir Afrique l'observateur nee na discours jàmm la discours rafetala xalifa Ababacar Sall settiwaa woona moom nag daat nay dal xelu kilifa yi nee na leen na seen xel dala ñun nag jóguñu benn yoon ngir taal réew mi yéen a gi di Sud Quotidien nee na tey ji ci guddi la ñuy màggal Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Medina Baye jamono ji nag fees na dell yéen a kaay gi de la sa na tiwaawoon tamit fees na dell ki taalibe journal bi ne nag gars yi dañoo gi yéen a kaay gi délibération nee na Medina Baye bëri na fa ñoo xam ne bi ñu ñëw maanaam ci ndox mi ñu jaar a kaay gi di Walf Fadjri bàyyi mbirum gàmm gi wax ci lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci ne lu jëm ci wàllum ubbi te école geek wàllum amuñu ay kayitu juddu ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel yéen kaay gi de la Soleil xëy diñu xibaar naan ñu université Cheikh Amadou Bamba bi nga xam ne moom lañu tabax si Touba ren ji dina daal di ubbi maanaam danañu fa jàngee ji yéen a kaay gi di réew xëy seeq waxtaan ak Pape Ousmane Njinga ñu gën ko xam ci Patrick mu nekk ci série Karma moom mii daat nay wax boppam nee na électricien la woon waaye tamit nee na dafa bëgg a créer série wax na tamit ay conseil jëmale ko ci ndaw yi nga xam ne ñoo bëgg a dugg ci lu jëm ci wàllum théâtre ak yu si ajo ak i projet ma ma ngi ci réew mi quotidien Sud Quotidien xëy bi nga xam ne moo explosé woon te diwaanu Diourbel limub ñi nga xam ne ñoo fa ñàkk seen